juróom-ñaari waxtu mooy jot ci seen télévision nationale tolloog waxtu yi nga xam ne ci la ñuy baaxoo di teew fii ngir dëkk leen xabaar li ci gën a ci njëlbeenu xabaar yi jàpp nañ ci dem gi nga xam ne ni jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu xabaar yi mu jaboote itam mboolem ñuy yëngatu ci wàllu télécommunication demoon na ko nimeeku ji yenn kër yoo xam ne da leen a jaboote demoon na ko ci mel ni Colobane dem ko ci mel ni Diamniadio dem ko ci mel ni itam eh, fi nga xam ne moo doon technopole ngir xool ñi nga xam ne ni ak njabootu communication la ak technologie mu xool itam nañu tooge tey jii nag siiwuna lool gerew bi nga xam ne nii ñii nekk ci dakar dem dikk dañ ko amal bi maanaam ñu wàcc gaare seeni kaarna du ñu dem du ñu dikk du ñu yeb kiliyaan loolee nag bu ngeen gisee ñu def ko ca la wax moo dina dafa am ay matuwaay yoo xam ne nii kilifa ga fa nekk da koo jël te dëppowul ak seen coobare mu nekk loo xam itam mbiru parparloo ak itam mbir yoo xam itam dëppowul ak doxalin wu rafet moom la ñuy ŋàññi ci wàllu xabaar itam tàggat yaram dinañuy waxtaane championnat national division 1 ci jongante yi nga xam ne ni amoon na fi waaye yeneen pàcc yoo xam ne ni dafa soxal wàllu tàggat yaram lu ci mel ne wàllu scrim ndax kat doomu Sénégal bi itam dafa am jaloore ju mag yoo xam ne def na ko ci wàllu làmb itam siiwoon na ci gaaw ak bi ñu génn incha allah loolu yëpp doon loo xam ne ni Ibrahima Mboup dinañu ci indil ay leeral ni ñu ko wax ci njëlbeenu xabaar yi jëwriñ ji ñu lépp lu jëm ci wàllu xabaar mu yëlif itam këru xabaar yi kër jokkoo yi sol na dàllam gannaaw ba ñu ko tabbee foofee moom Alioune Sall ngir dem xooli ña mu jaboote ña mu jaboote nag am nañu ci nekk ca Colobane am ñu ci nekk ca Technopole am ñu ci nekk itam ca jam ñaajo loolu yëpp doon ay kër yoo xam ne ni ku tudd communication ak technologie tudd ko ndeem nag dafa nekk ca njabootam tey itam mu doon ko xam ne dañ koy doog a dénk cër boobu mënulu yell la ngir mu dem seeti leen xool nañu toogee ki nga xam ne nag moo doon Amadou Diallo àndoon na moom Ibrahim Ndiaye fay des am nakar wax ci parce que nit ku bax la ñu liggéey lan famille euh, ñun ñëpp képp koo xam ni fii nga fi ñi retraite nañu wala def pour naqarlu li nga et mu dal ñu ñun ñëpp ndax famille la toujours famille jàngal ñu liggéey un travail bien fait vraiment mu nekkoon nit ku baax nit ku xewle muy bànneex muy naqar daan déplacé wu personnellement du yónni kenn moo naan demal boppam man nii di la wax nii heure bu ma xewle waan ñëw na teg fa samp ko tànkam euh, nekk ak man bokk kook man bu ci mujj am na koo xam ne fii dafa nekkoon fii yaram bi naqadi ba ma nee ñu dimbali ko ba mu ko ko waxee mu woon bitim réew waaye tontu na ma donc loolu parce que mën naa wax toujours ne lépp loo xam ne social loo xam ne mun naa ci def Pour ci. toujours devenu dans wax vous êtes les plus importants de la route, les chauffeurs parce que yéen liggéey bi y a koy le FEP. donc vraiment daf ñu joxoon suñu respectez Nous ñu toujours wax toujours ni yéen ay vitrine pays parce que bailleurs yi ñëw di financer dans le pays ils bu ñu ñëwee yéen la ñuy gis donc il faut avoir un comportement exemplaire chaque fois que le daan wax xool ndax sa oto xol ni ngay sol ni ngay et tout daf ci ci dem ba ngay wax mais rek pour les baax. et puis si manager euh, exemplaire manager surtout mettre ses collaborateurs dans de bonnes conditions pour favoriser la collaboration et la réflexion. Euh, pour que alors liggéey nga xamantene yépp état bi sant nañ ko ñu mën ko atteindre loolu moo tax d'ailleurs euh, ancien président de la république félicité na ko publiquement à plusieurs occasions hein, ce qui témoigne euh, de son efficacité ak xarañ bu mu àndal si liggéeyam ak volonté bu mu ànd pour pour def liggéeyam. tey Ageroute ki ñu ñàkk la fa dafa sori torop ci ñu dafa nit nit ku nit ku baax nit ku baax dem na.

bu ibrahim a taxawee ndax dañ naan ki jiitu day boot ñëpp te noonu la ko doon doxalee. am na fu mu jot a jaar jaar na fu bari sax waaye tey bu ñu ne woon Ibrahima xëy na ñi xam kanamam bariwul waaw te Ibrahima mu ngi ci environnement infrastructure yi bu yàgg ba tey ndax nee naa liggéey na ak Abdou Diouf liggéey na AGETOUP nekk fa directeur technique nekk fa directeur adjoint nekk fa directeur soo nga ñëw AGEROUTE te ba mu ñëwee AGEROUTE ak léegi.

Sénégal m'a perdu un grand fonctionnaire de l'État Nous ñu ngi présenter condoléances à toute sa famille ses amis et puis aussi le personnel de la journée. vraiment c'est un homme exemplaire. di Sénégal parce que Sénégal un qui Sénégal. ndax tey jii bu Sénégal nit ñi buñ mënee dem ak dikk ci fu nekk ki ginnaaw yàlla ak ndimbalu autorité yi ci loxo Ibrahima la ko jaarale tey Sénégal buñ demee bay wax waxu autoroute waxu pont waxi tali yu mag ki ginnaaw yàlla ci loxo Ibrahima la jaar te tey ji avant même sax ci autoroute yi ak pont yi lépp lu fi infrastructure socio-économique au Sénégal ci loxo Ibrahima la jaar dañuy waxtaan benn bis mu ne est-ce que xam man maa construire ministère de la santé bii ñu nekk donc c'est une fierté nationale tey koo xamante ni yàlla def na li gën te li gënal yàlla également def ñuy gënal mu ñu ci dara donc li ñu mën a def mooy ñaanal ko mais également surtout inspiré wu ci li mu fi bàyyi li mu fi bàyyi mooy rigueur ci liggéey njub ci wàllu liggéey mais également am ngir sa askan loolu Ibrahima daf ko inculqué ci ñi mu fi nekkal fii Ageroute ñun ci loolu leen nekk ci tànk yooyu leen di topp ñu indi ak joyanti xam naa ne band bi nga xam ne moom la Amadou jàlloo di liggéey te moo soxal itam euh, dem gi jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu xabaar ak wàllu itam communication demoon ni mu ko ji ak njabootam dinañu ci dellusiwaat bu yembee li doon gis léegi nag moo di ay seede yu rafet yoo xam ne nii jël nañ ko joyal ko ci jëmm ji nga xam ne moo doon Ibrahima Ndiaye te ay jamono mu nekkoon fi directeur général bu AGEROUTE doon kër gu ñu denk lépp lu jëm ci wàllu liggéey ay tale ki ak leneen mel ak tabax moom nag gannaaw ba mu fi bàyyeekoo ñooñom ñooñu doon seede seede bu rafet boobu ci moom loolu itam sax tax nañu am itam njukkal loo xam ne delloo nañ ko ki nga xam ne moo ne Ibrahima Ndiaye ndax kat du ne fàtte nekkoon na AGETIP nekkoon na nekkoon itam euh, fi xam ne nii moom moo doon AGEROUTE kon bu fi bàyyeekoo am na xalima goo xam ne Mame Moussa Niang bind na ko ci boppam ngir jagleel ko itam kii di jëmm jooju ñu teewlu ko. manager bu fonk liggéeyam fonk service dem na. nit ku amal njëriñ réew mi dem na nit ku doy royukaay am engagement waaye it fonk lool li nga xam ni moom moo di ëllëgug réew mi Ibrahima Ndiaye dem na nit la koo xam ne Sénégal yëpp ràññee nañ ko ci wàllu liggéey bi nga xam ni def na ko ci wàllu lu ñuy wax réseau autoroutier mu di dem bi ak dikk bi ci Afrique sowwu ginnaaw bi mu ci dugalee loxoom ay soppite kese leen ci gis ingénieur le boo xam ragné nañ ko pour ni polytechnicien bi polytechnicien Sénégal 1960 ak légui chantier rek la ba bu nga professionnalisme infrastructure routière autoroutière ñaar fukki at yu yi ingénieur Ndiaye fanweeri at ak ñent jot nako def ci service bi nga xamné modi defarum ay teli 27 décembre 2023 biñu ñu génn ci le nak passé li nga xamné modi témoin bi kenen ki nga xamné moko moo ci kër gi di Ageroute ancien DG bu AGETIP Ibrahim Ndiaye daanaka fofé dafa wane lu mu mëne ci service yépp laata muy nek directeur général ba ci agence autonome des travaux routiers ba atum 2005 Ibrahima Ndiaye daanaka ci terrain bi rek lañ ko ragné ak ci chantier yu mag yi nga xamni dafa soppi xar kanamuk réew mi ñu ngi ci Abdoulaye Wade daanaka noppalu na 2012 2014 laata président de la république Macky Sall wowat ko ci bop kër gi di Ageroute 2014 c'est le signé nag ni dellusiwaat na ci bop kër di Ageroute ci le indi mom Ibrahima Ndiaye yeneen projet yu bees tax ànd ci ak plan bi nga plan Sénégal émergent daanaka tëli ak autoroute ay priorité la ci moom objectif am woon dara lu dul ba lépp ci wàllu autoroute ak route ci Sénégal dëkk ya gën a ndaw ya gën a mag foofee fépp xalaatam doon yóbbu fa ak autoroute ancien DG pour Ageroute dem Ibrahima Ndiaye dem bàyyi ci ginnaawam réseau routier bi nga xam ne teg na ko muy réseau routier boo xam ne la ci ëpp mu ngi ko teg ci kaw lii di plan émergent yàlla na ko yàlla yërëm. jërëjëf Mame Moussa Niang kon loolu doon seede boo xam ne ni itam ak njukkal loo xam ñu ngi ko doon delloo jëmm jooju nga xam ne moom Ibrahima Ndiaye doon doomu Sénégal bu ràññeeku boo xam ne itam ku liggéeyal am réewam la kon moo yàlla itam ñu defal ko loolu ñaan suñu borom itam ñaan def ci moom njëggal ak yërmande. Euh, jamono yi nag xam nañ ne am na kilifteef goo xam ne nii daanaka jóge na ci euh, daanaka ab dogal la sax ngir lépp loo xam ne moo doon yenn tabax yi ñuy def itam te mu nekk ci tefes gi nga xam ne nii la nekkoon itam géej ga nañ ko doon gisee ak la ca nekkoon itam ay garab mu doon sàmm itam li nga xam ne moo doon géej gi ba du dem fenn fu mu war a dem loolee kat ba naaw ba ndigal li jibee am na ci doxalin woo xam ne ñu ngi ko cee doxal moo waral nag ñu am gëstu bu yaatu boo xam ne defoon nañ ko jagleel ko fi nga xam ne moo doon géejawaay ak filaawo ya fa nekk Ibrahima dañuy fàttali njëriñam ak taxawaay ba ak ba ñu teewlu ko

bi nga depuis le décret de déclassement euh, l'acte qui consacre le PUD moi le plan de détail et les autorisations préalables des des communes concernées et enfin les autorisations des autorités forestières pour que bi mun a am. lu mel nak di firndeel ne ci loi lañ ko teg ngir dal di dag yenn filao yi mu am leneen lo xamante tamit moko ko Et filao dundam mu ngi toll diggante trente à quarante ans.

lu tax moom mu lan moy PUD. PUD moy plan d'urbanisme et de détail de Guédiawaye donc lu fi dess moy fexé ba côté bi té service eaux forêt mu ngi liggé bu baax pour que li ci tollu depuis ginnaaw Malibu ba gaday ñi def ko ñi def fa ay plan ay filaaw ak yenen xeet garab yo xamante dina dimbale VDN bi dina dimbale kër yi nek de l'autre côté. njëriñ bi nga xamante ne bi amna ko ak yenen xeeti meññeef. tax na ba agent eaux et yi di def seen kem kàttan ngir daal di koy jëmal saay su ne bu ci mel ni ilo bi nga xamante ne mu ngi toll ci 300 mètres carrés fii nag ñu gis ne am na benn espèce bu bees boo xamante ne mu ngi ko fiy développé bu weesoo filawul mu ngi tudd euh, Civeolia coriace euh, benn euh, xeet garab la mais ci suuf lay nekk du kaw du dépasse un mètre hauteur quoi waaye nag avantage am bi mooy fu mu nekk day law

yaatu na ba noppi meññeef yu bëri dañ fi fekk. pépinière la bo xamantene euh, bo fi ñëwee di nga fekk euh, lu tollu 14 espèces waaw avec euh, benn capacité de production buy dem ba téeméeri junni garab la produire waaw. alors seen zone d'intervention. bon suñu zone d'intervention littoral bi la wa géej bi euh mais aussi ak ci bir dëkk bi que ça soit ci bir école yi ci bir jumaa yi ci jamono joo xamantene ne nag ñu ngi waxtaanee lépp lu aju ci dérèglement climatique bi mu mel ni pépinière bi am na rôle bu am solo boo xamante ne mën na ko jouer. littoral dafa nekk barab boo xamante ne il faut il faut ñu protéger ko il faut ñu jëmbat ko parce que da ngay gis ni ngelaw li buy souffler day indi day indi euh, suuf ci dëkkuwaay donc garab yooyu ñooy permettre fixer suuf soosu noonu. lu nu mel sax moo tax ñuy gis yenn initiative citoyenne bu ci melni association bi ñu association Sénégal Vert. Sénégal Vert est une association qui xam ne de li nga de protéger l'environnement, euh, di ñun dañuy def ay reboisement sensibilisation aussi formation avec euh, la jeunesse sur le recyclage des pneus euh, di def aussi plaidoyer littoral bi boy xol ñun ba ñuy ñëw fi bande filao yi amaana doonoo ñemee sax dugg ci parce que tellement nu mu dansé woon ñu né pourquoi pas ñu ñëw côté bi jaune bi ñu reboiser waat fi euh, li nga xamni mom moy mooy bande yi pour mëna a waat fixer sol bi en même temps aussi pour mëna éviter aussi changement climatique ak érosion côtière bi filao yi nag yàgg fi lol ba taxna ñuy laaj nan lañ fi juddoo ak li ko waral. Euh, filao yi ñu ngi koy euh, tàmbali di gëstu mbiram 1948 euh, gouverneur bi fi nekkoon bu AOF moo ko jëloon temps boobu Sénégal moomatul moomagul boppam mais bu ñu gëstoo gis ni filao moo gën ci xeet garab yi ñu projeté ñi tànn ko donc boo xoolee diggante 48 58 ba tey am nañu au moins plus de 72 ans yoo xamante ne filao yi am nañ ko. mu mel ni filaawo yi seen njëriñ kenn du ko natable ba tax na kilifa yi di def seen kem kàttan ba lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu reboisement littoral bi ñu koy jëmmal. voie de dégagement nord bi ngeen di gis nag kilifa yi bokk na ci li nga xamante ne dañ koy protéger mooy jëmbat yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci tefes bi. jërëjëf Ibrahima euh, li nga xam ne nii moo soxal jabe yi ñu jagleel wàllu càmm gi ak wàllu mbay mi mu nekk fiyaaraade yi dañ koo dëgmal ndax incha allah ñeenti fan la war am ci weer wi ñu dëgmal di weer mais jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn loolee nag laaj waajtaay ak organisé boo xam ne bëgg nañ buñ demee ba ca bés ba ak buñ demee ba tam bés yooyu itam lépp doon loo xam ne lu mucc ayib lay doon te loolee laaj waajtaay moo waral itam ñi nga xam ne ñoo ŋànk organisé bi doon daji seen biir ngir waxtaane ko ñu teewlu ci anésiñañamaane fii ci CICES ndaw yaangi yeungu bu baax di préparer fiara bi ñu nar koo amal fii ci ñenti fukki fan ba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai bi ñu nekk événement bi nag di xaar ay junni nit. fiara nag comme ni ngeen ko xamee mu ngi commencé du 4 au 26 mai insha allahu rabbi ñu ngi xaar euh, ñaari junniy exposant ci commencé ci baykat bi ki nga xamni moy transformer ba ca industriel bi ak banque yeeg structure yi nga xamni ñom ñoy jappalé baykat yi ñu ngi leen di xaar FIARA ren ñu ngi koy organiser ci espace bo xamni ni ci euh, area bo xamni mu ngi fukki junni ak euh, ñaar fukk ci espace boo xam ni dina permettre ñu ñëpp ñu daal di daje ku mës a ñëw Fiara boo xoolee nii di nga xam ni li doon am lu double la ñu daal di indi fii pour que ñun ñëpp ñu nekk ci benn cadre ensemble du 4 au vingt 26 vraiment ñu def Fiara nit ñi gis ci seen bopp économie Sénégal développé ci baykat bi gis ci boppam. ñaar fukk ak ñeenteelu édition bi nag coppite am na ci ci ñu nar dalal fii ci Dakar. comme ni ngeen ko xamee Fiara. at mu jot day doon dañ koy organiser ci ñaar fukki fan ak lu tegal mais loolu bi ñu defee xayma dafa am lenn loo xam ne moo doon manqué woon muy participation structure yi nga xam ni bitim réew la ñu nekk mën naa la ni Occident ci pays européens yi ñu ni dañuy organiser benn salon boo xam ni bu ñetti fan ñeenti fan pour permettre homme d'affaires yooyu ñu daal di ñëw wane seen liggéey wane seen ay mbëbët dajee ak ñi nga xam ni ñoom ñooy seen ay clients waxtaan ñoom mën nañ sax signer ay contrat daal di jëlaat seen ay bagages dem. ñu ngi euh, comment ça s'appelle Italie France amener nañu jugee Égypte délégation bi yatuna na lool ah donc ñoñu ñoy nek ci siyaara bi. loolu moy innovation majeure bi nga xamni moy am siyaara. ñi yëngu ci mbay mi ak sambu bi ñëpp danañu fi dajé wéccu ay xalaat ak ay produits lépp ngir gëna doxal secteur primaire bi ngir gungé xeetu production yépp ba ñaari secteur yi gëna jëm kanam. jërëjëf Anes ñi ngi ko doon wax ci njëlbeenu xabaar yi jur ñi ñu lépp lu jëm ci wàllu xabaar yi ak jokkoo bi di Alioune sàll tey ji sol na dàllam seeti itam yenn kër yoo xam ne nii dañoo bokk ci ñi mu yilif mu kër yoo xam ne ñi nga nekk ci jam ñaajoo ak fu ci mel ni itam te ak Technopole fu ci mel ni data center bi ak yeneen barab yoo xam ne lépp lu jëm ci wàllu xabaar yi ak li nga xam ne moo soxal itam xarala yu yees yi dañu cay yëngu moo waral mu dem seeti leen ba xool nañu toogee band mi nag jàppandi na Amadou Diallo moo ko doon lijjanti ñu teewlu ko mu nekk génn bu mu jagleel ñëpp ñu yëngatu ci wàllu numérique ministre communication télécommunication ak numérique ci Colobane la njëkkee ci atelier bi nga xamante ne nii dañ fi réparer ay matériel informatique équipement yi xam ne doxatul dañ koy jël trier ko réparer ko ba ñeneen mën koo jëfandikoo te ñi koy def ay ndaw Sénégal lañu. délégation bi daal dinay dem ci wet gi ci locaux Sénégal service bi nga xamante ni nii dafay tax administration bi gën a jege askan wi. bi ñu jógee Colobane ñu daal di jubali technopole ca Pikine fii nag ministre bi daal di na nay xoolal boppam nan la liggéeykat yi toogee waxtaan ak ñoom ci lépp lu làmboo ci seen liggéey. fii nag defal nañ ko fa ab présentation bu mucc ayib ci écosystème numérique fii ci Sénégal ministre bi ak délégation bi ñu jógee technopole jam ñaajo la ñu dem ci li ñuy dippee data center bi. manam fi ñuy denc données yi nga xamante ni wa Sénégal ñoo ko moom. visite bi nak lu ñu ci jàngat mooy euh, euh, mooy bu ñu nga xamee ne jël nañu contact ak directeur yi ak ñi nga xam ne ñooy responsable l'idée c'était de rencontrer ñi nga xam ne ñooy travailler au quotidien parce que jàpp nañ ne politique bu ñu war a teg tey Sénégal ñi koy porter mooy les travailleurs d'abord moo tax ñëwoon xool seen condition de travail maintenant il y a une nouvelle vision bi nga xam ne son excellence le président monsieur Bassir Diomaye Diakhar Faye mom la am ci euh, innovation dans le cadre du numérique mom la am ci walu wax sécurisation de nos données moy lepp li nga xamné c'est des données numériques ñu mën ko indi fi ci Sénégal am exemple bu ma ci joxé moy euh, bu nga xalé li nga base de données bi nga xamné mom lañuy la suñu pièce d'identité bi nga xamné mo le premier élément en termes de symbole d'une souveraineté aujourd'hui données stocké wuñ ko Sénégal donc loolu dafa nekk rek benn exemple parmi tant d'autres. numérique di xarale yi di luñ mën a sukkandiku ngir def ay performance yu am dayo dafa nekk lu am solo ngir daal di transformer administration publique bi stratégie boobu liñ ko weer mooy wàllu souveraineté maanaam moom sa bopp si boobule secteur ba lépp nga mën koo doxalal sa bopp waaye tamit sénégalais yi mën see jot naka noonu entreprise yi jërëjëf Amadou si wàllu xabaar ba tey ki nga xam ne moo doon doomu Sénégal bi ñuy wax ndey Binta Diongue day dafa doon ko am xare la lool ci wàllu scrim bi maanaa xeetu épée loolu sax moo waral mu am paas ba koy yóbbu ci jongante yi ñuy am ca Paris doon pays réew France ci Jeux olympiques yi nga xam ne itam moo dajale itam ñu siiw lool te am manoore ci yenn fàtte yi ñu leen dénk loolu nag moo waral Ndeye Binta Diong doon doomu Sénégal daal di am li nga xam ne nii moom moo doon ja def jaloore jooju ba war a mën a teewal suñu réew foofu gannaaw ba mu daanee doomu Algérie bi nga xam ne moom la ñuy wax itam Chasseline Bouteflika moom itam am ku ci kii am na fukki poñ ak benn fukki poñ ak juróom kii am fukki poñ kon loolu moo waral doomu Sénégal bii di Ndeye jong Diong dem foofee ca Paris ca Jeux olympiques yi teewal fa réewum Sénégal ci wàllu xabaar ba tey xam nañ ne fàllu football amoon na ay jongante ci championnat national division 1 loole nag mu am ci jongante boo xam ne itam bu siiw la woon bu nekkoon ci diggante ñi nga xam ne ñoo doon waaye Pikine ak waa Jaraaf Fatoumata Sabane am na lu mu ci tënkal ñu teew teewlu ko. benn bal ci dara jaraaf daa dee nekk ñaareel ci classement bi ginnaaw ndamam bi nga xam ni am na ko ca Pikine ñam ñi nga xam ni ñooy sol vert ak blanc yi nag dañoo rek dooree match bi nu baax ci kanamu public bu am solo foofulee ca pikin dañoo doxal rek lu toll ci fukki simili ak benn ñu daa am benn action collective kii di Abdoulaye yi nag moo daa dee rek dugal benn but bi nga xam ni mooy am ci match bi ñi nga xam ne nag ñoom la Joseph Wagan Senghor di tàggat jéem nañu lu ne waaye daal démb moom ndam nekkul woon ci seen boor xale Pikine dañoo rek daa dee mënul jaar fenn ki nga xam ni mooy gardien de but di Cheikh ñetti poñ yu am solo ngir jaraaf nag ginnaaw saison bi juróomi journée rek moo ci des AS Pikine nag ginnaaw bi mu ñàkkee match bi li mu nar a def rek mooy jéem a des ci Ligue 1 bi. bëggoon nañu gagné trop mais dafa am benn fait de jeu ñu manqué attention jël but. bi buñu jël tay moo tax xale yi jouer avec pression parce que dañu bëggone jouer ragal perdre football doy football ragal perdre c'est pas bon daf lay inhiber donc tay lolo non la démé ñun même suñu gañoon tay dañuy nek à l'écart encore donc tay dañuy revenir à la réalité euh, au début on était dans un objectif de maintien maintien bo xamné do doo ànd ak ay méttitu ak ay ay ay stress donc tay on reste quatrième y' a pas trop de conséquences

mais je pense que bu ñu appliqué woon au moins on aurait pu partir avec deux buts d'écart. Jaraaf am yaakaar ni rek dina jàpp li nga xam ni mooy titre bi ginnaaw ndamam bi nga xam ni am na ko foofulee Pikine mu doon loo xam ni daal yaakaar mi ngi desandi ci ñi nga xam ni ñooy xale jërëjëf Fatou mu mel ni itam diggante ñaari club yooyu ay faral di bëri lool ak réeroo ci suñuy jogante loolu nag doon loo xam ne ni luy baamtu la ñoo xam ne doon xam ne war nañ cee mën a bind saafara kilifa itam daje nañu am na itam noo xam ne noonu dañ gisee seen daanaka xët-xët yooyu ñuy faral di àndal ñu teewle leen. football Sénégal la ñu ñëpp ñoo war a bokk ndey bokk baay parce que lii mooy yóbbu au niveau international suñu football local bi. donc ñun ñoko wara jaay ñi nga xam ci ni ñoy euh, ñun wa Sénégal donc je suis un fervent supporter de Pikine donc di di di lancer un appel sama morom pikinois ñu wote fair play parce que ndam ni génnu Sénégal jaraaf moy Pikine Pikine moy jaraaf. donc euh, comme la fois passée donc waroon na leen may opportunité wu supporteru jaraaf yi ñëw donc ñu dund ambiance bi que le que le meilleur gagne. mais nañ ko jouer ci fair play ku gagné xam ne noonu la ku ñu gagné rek encourager encouragé pas.

faaw ñu xoolaat rek suñu bopp ndaxte équipe bu nekk euh, sooy joué da ngay bëgg say supporter ñu teewee fii ngir ñu ñaax la. du du lu ñuy rafetlu parce que franchement nee naa euh, équipe yi nga xamante ni ñoom la ñuy wax équipe populaire équipe de de localité muy Jaraaf medina Tëngéej Géejawaay dañoo war a nekk équipe yoo xamante ni suñuy jeu dafa war a am ambiance ci côté yëpp supporteru Jaraaf di ñëw Pikine supporteru Pikine di dem Médina supporteru Géejawaay di ñëw stade Alassane Djigo supporteru Pikine di dem stade Amadou Barry di seetaan loolu mooy ambiance mais aujourd'hui su demee ba supporter yooyu mënatul ñëw parce que par mesure de sécurité c'est un problème donc naka président supporter yi ak supporter yi toog waxtaan indi jàmmoo def fair play aussi comment comment mu commencé si dirigeant yi nous toog ñu parce que dafa c'est un cas ce n'est plus entre deux équipes c'est plusieurs équipes qui ont ni du de kon ba tey loolu nga xam ne moo soxal wàllu tàggat yaram am na dox boo xam ne itam doxub tàllal ay cër la ak tàngalu ñu bay baaxoo di def ñu koy wax itam randonnée pédestre loolee nag ngir gën a fudd say tànk moo waral mbootaay gi nga xam ne dafa lëng boo lënkale ñu nekkoon ca Saint-Cyr doon l'école boo xam ne dañu fay tàggat ñu yëngatu ci wàllu tam kaaraange gi te mu nekk ci réewum France ñoom itam ñiy baaxoo di def lu ni mel dibéer jii nag amal nañ ko euh, Tandaxa Njaay ak Jacob Ndir demoon na ci ñu teewlu leen

ñi nga xam ne nag généraux yi ànd si ak le général Babacar Gaye moo ni nag ki nga xam ni moo di président wu Saint-Syrien Sénégal ak ki nga xam ni nekkoon na nekk président d'honneur mu di de général Mamadou Mansour Seck échauffement bi nag dal di nañu ko def avant le départ ñi nga xam ni nag mooy moniteur de sport yu ASFA ñoom nag ñoo ko def ñu dal di dem nag si randonnée bi nga xam ne ay militaire ay civil ak nag mbooloo mu takku nekkoon fa nag ki nga xam ni moo di président fédération sénégalaise bu randonnée pédestre nga xam ni si invité d'honneur yi la am na kàddu yu mu wàcce tey jii nii dañu ñëw wuy si suñu ay euh, wëllëre dañu wuy si suñu ay partenaire muy waa association euh, saint-syrienne bi nga xam ni notre le général gay mi ngi koy diriger mooy président d'honneur bi ànd ci ak nak ñu nga xamni son secrétaire général le colonel Mbari Diop. dañu ñëw donc jàppale len si sen 16e édition randonnée manam fukki yoon ak juróom ben bu nga xamni ñu ngi def randonnée bu melni fédération di len ci accompagner. randonnée pédestre bu melni nak nga xamni a mbolo mbooloo mu takku ak li nga xamni mom moom ci ñu doon xaar yëpp ñu daldi ka gis pour wane ni rek diggante civil ak ñi nga xamni ñoo di militaire yi yëf yi daal mu ngay continuer di wéy bu baax a baax. jërëjëf tàndaxa yaagi Jacob Ndiir ñi ñu demaloon foofee ñu ngi ko doon wax ci njëlbeenu xabaar yi Dakar dem dikk doon kër goo xam itam dafa yëngu ci wàllu dem ak dikk de tey jii dañoo gaare seeni woto denc itam seeni caabi woto ndax am lu leen mitti la leen mitti mooy nee nañu seen kilifa ga leen jiite dafa jël ay dogal yoo xam ne ni dëppawul ak seen coobar ñàkk koo rafet looloo waral itam ñu doon loo xam ne itam luñ doon màndargaal la noonu ci gaar ga ñu gaari seen i woto jëwriñ ji ñu denk lépp lu jëm ci wàll woowu nag demoon na seeti leen ngir xam dafa xew ki nga xam ne itam moo nañ fi la Constance Diagne yebaloon nañ ko foofee secteuru dem ak dikk gi tey dafa taxaw ndax te kat euh, liggéeykat yi nekk ci société publique Dakar dem dikk euh, dañoo rek nekk ci ab grève euh, ci altine bi mu nekk nag ci seen réseau yëpp ci biir réew mi ak tamit ci biir bitim réew fi nga xamante ne fa la ngi daw li ko waral nag ñoom nee na dañuy ñaawlu naka la direction bi di doxalee. mooy ñun Dakar dem dikk ci ñuy njëkk a yeewu ci Sénégal ci la ñuy bokk trois heures muy taw muy seddaay muy tàngaay lépp. tôt tardé dont absenté sans justificatif donc ñun nous transporter sénégalais yi ñuy liggéey kon ñun war nañu am ay conditions de travail yu baax mais Dakar Dem Dikk amu ko ba ñuy def augmentation yi ba ñu xaaree xaar ba état yokkalee dañu ne bokkoo leen ci ba ñu demee jëli décret bi

est-ce que vous savez comme à Dakar Dem Dikk benn jour de repos la ñu am ah kon fi ñi fiy liggéey ay jambar lañu ay kor lañu ay ñu ay ay fak teud leen ño xam dañu bëgg conserver seen dignité mhm. kon ñun li ñuy dénoncer moy la mauvaise gestion ni ñuy gérer agent yi la mauvaise gestion ni ñu taxawulé dañuy wax ne ñun bëggatuñu Dakar Dem dik fi ñu fiy tek politicien bo xam ay xaritam lay nommé ay wa dalam lay nommé ñi di liggéey di respecter heure bi duñ ci nommé kenn parce que tamit mun ñu nangu bañ ñu kenn mu am promotion mais promotion yu bëgg mooy nañ koy encadrer nañ koy jaaral ci yoon ku puus xam ne kii moo si topp mais salaamaaleykum maaleykum salaam rek yaa ma doon tàccul Kédougou wala yaa ma doon tàccul Matam ñu xëy xëy rek def la cadre wala def la M5 ci ginnaaw ñoo xamante ni a fi ñëwandoo loolu c'est écœurant loolu nag lañ doon bañ moo tax note yi nga xamante ministre bi jox nañu ay garantie yu leer nañ nee na defar na draft pour annuler bépp note boo xamante directeur yi jël nañ ko yaa dégg waaw loolu tamit loolu de ne ko bu mu xamante ni ay notu yaa ma neex la wala ay notu tappale loolu moom wax dëgg fa yàlla teg na ko suñu loxo. bi ñu demee nag ci beneen côté gi di wàllu ñi nga xamante ne ñoo jiite boîte bi ñoom ñuy ñaawlu ni nga xamante ne rek grève bi amul préavis te rek def leen bett donte nag ñoom ubbeeku nañu ngir gën a wéyal waxtaan yi. dañoo amoon benn euh, poste Thiaroye bu nga xam ne ni foofu lañ suñu dépôt bi problème bu ñu amoon dañoo am problème maintenance Et à chaque fois, depuis quatre mois maintenant, son euh, chef de division bi dafa retraite remplacé wuñu ko ñu à un moment donné nous avons des problèmes de bëri ci biir euh, société bi ñu chef de division nous nga les ne ni adjoint chef de division Kenen ki si top, ñu def ko chef d'atelier Nous demat pour une question lu ñuy excellence opérationnelle nan la ñuy ba euh, vraiment l'idée bi gën a baax ñu ne dañuy dem ku nga xam ne ni beneen dépôt la nekkoon indi en tant que technicien def ko chef d'atelier boba dinañ am ñaar chef d'atelier ak ben chef de division donc koku nak syndicaliste la délégué du personnel la def na fi plus de 10 ans amul kenn ku bes ko nga xamné ni dafa jóge fenen ñew ci Dakar Dem dik donc euh, di fàttali ne rek mu ma ñëwee Dakar Dem dik ça fait un an et demi bu ma fi fekkee directeur yi ñeneen ak ñeneen dama leen bàyyi parce que société bi amoon na ay jafe-jafe mais ma ne du ma def plan social damay liggéey ak ñoom pour vraiment redresser société bi si loolu la ñu nekkoon te augmenté nañu suñu recette de 45 pour cent réduire suñu charge yi te gis ngeen ni tamit tey Dakar Dem Dikk mu ngi fépp donc loolu yëpp ñu ngi siy rafetlu euh, liggéeykat Dakar Dem Dikk yi parce que war nañu wax trois syndicats sur les six te ñenn yi la du ñëpp du liggéeykat Dakar Dem Dikk ñëpp mais ku nga xam ne ni même benn nit rek su amee benn lu nga xam ne ni nakar na ko man dinaa ko gis toog ak moom waxtaan ak moom pour jéem a jël trouver ay am na nag lu nga xamante ne nee nañ duñ ko baale mu dim yàkkum fukki bus ak juróom ci biir société ba loolee nag ñi ko def dina euh, dinañu wuyoo ki yoon. Euh, am naa nakar bu rëy parce que euh, bu ñu ma woowee ñu ne ma am na ay bus yu nga xam ne ni toj nañu vitre yi si si biir dépôt bi la nekk. loolu mënul kenn kudul ku nekk si kër gi ou en tout cas ñu nga xam ne ni bokk nañ si affaire boobu donc loolu moo tax affaire bi metti na ma lool mais enquête woo nañu police woo nañu enquête yëpp yu nga xam ne ni war nañ ci taxaw pour xam exactement kan moo ko def te dinañ ko retrouver parce que lii moomeel askan wi la te dinañ si taxaw incha allah dinaa si taxaw pour leeral affaire bi pour ku ko def daal xam naa ne moom dina ko regretter incha allah. ministre bi nga xamante ne nag moo yor wàllum dëgg dikk gi di El Malick Ndiaye daal na dem rek ci siège bu dakaar dem dikk foofe nag waxtaan na ak liggéeykat yi ba ñu daggal rek seeni grève daal na tamit dig leen ubbiteem ab enquête ngir rek mën a lijjante li nga xamante ne moom la ñuy ñaawlu ci biir dakaar dem dikk jërëjëf la mel Constance Diagne jërëjëf itam mbokk ci teewlu bi loolu moo doon li fi rusoon ci àll xabaar dëppoog liñ ci loon ci waxtu li ñuy def moo di di leen ñaan gaal mu ci géej gi xewoon